C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la 2STV à partir de 14h dans votre émission Made in Africa, la première émission de variété musicale panafricaine qui s'installe, euh, comme il est de coutume, sur la 2STV, la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Merci de nous suivre où que vous soyez, ici au Sénégal un peu partout à travers le monde. Merci à tous les Africains qui résident ici au Sénégal. Euh, les Gabonais, les Ivoiriens, aussi tout le monde, les, les Guinéens euh, de la Guinée-Conakry, ceux de la Guinée-Bissau, euh, de Équatorial aussi. Merci à vous tous. Merci de rester fidèles au programme de la 2STV et plus particulièrement l'émission Made in Africa, la première émission de variété musicale panafricaine. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, on reçoit en exclusivité deux n'est-ce pas Donc, euh, je dirais pas groupe, mais des entités, n'est-ce pas DJ Dollar, qui vient nous parler de plein de choses, nest n'est-ce pas DJ euh, sénégalais de ces deux ans yi nga xamante ni jàll nañ ko mais de cette année aussi il reste toujours le meilleur il s'appelle DJ Dollar mais un autre groupe c'est le groupe Mabo bien de choses à découvrir sur le groupe Mabo aujourd'hui en exclusivité sur 2STV ils vont nous parler aussi de, de du nouvel opus qui vient tout fraîchement de sortir en exclusivité ici avec El Habib MVP installez-vous très bien je m'appelle El Habib suivez-moi sur les réseaux tout de suite Inos B Isabel Tamobe pour le plaisir de tout le monde. Let's go. TV with toutes mes actualités et tous mes clips dans l'émission Madin sur 2STV avec El Habib. Inos bi sur la 2STV pour le plaisir de tout le monde, tous qui nous suivent actuellement du côté de Malika, merci à vous. Merci à tous qui nous suivent du côté de Yeumbeul, di leen Merci de rester fidèle au programme de Vidéo. Pardon, du ngeen dem ah? Dem leen, dem leen. Allez, évacuez, circulez, allez. di leen jaajëfal di ko jaajëfal Pamaay Bira ak euh, <laughs> Petit Dia de la 2STV de ay techniciens yoo xam ne tarkal ay xale lañ waaye mën nañ lool lu ñuy def n'est-ce pas euh, fi ngeen ma gis euh, man ngeen di gis may wax waaye am na ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw di di daw n'est-ce pas di see rek di dévisser lépp ngir mu baax di leen jaajëfal ah man moom man maay xaritu technicien wu 2STV ah. di kontaan si ñoom ñëpp alors j'en profite pour féliciter Akil n'est-ce pas bi nga xamante ne moom vendredi bi passé il a fait un bon coup au Sorano donc euh, mu concert boo ne le public a répondu quand même alors sur ce on va aller revisiter euh, le hip-hop sénégalais avec Is 814 Nos le titre de la vidéo let's go Guys, Nos maa ngi jaajëfal ñëpp nga xamante ne ñu ngi seetaan n'est-ce pas DJ Dollar c'est lui qu'on va recevoir sur ce plateau juste ko seetaan euh, euh, euh, balaa ñuy ñëw ci loolu n'est-ce pas di leen rappeler ni le 29 septembre inchallah ngi ñëw Vélingara au centre de récupération et d'éducation nutritionnelle bi nga xamante ne mu ngi saare cal yi ngir amal fa ay dons alimentaires n'est-ce di ñaan aussi képp koo xam ne rek am na loo ci mën a jàpp daañu ko bëgg incha allah boo ci mënee jàpp ci ceeb ci dëwlin ci meew n'est-ce pas euh, ci xorom ci ndox eau minérale loo ñu mën a jàppale rek ngir ñu yóbbul ko xale yooyu nga xam ne dañu am ay jafe-jafe ñenn ñi feebar ñenn ñi nekk ci malnutrition donc ñu jàppale leen ko incha allah loolu la fas yéene def ci sama anniversaire bi nga xamante ne euh, mooy yi ren. di dollar xanaa ñaari paquet ku sax mën nga ma ko jox ma ma def ko si sama saak ma yóbbaal. moo yóbbul ko gone yi foofu incha allah n'est-ce pas alors loolu képp koo xam ne bëgg na ci def benn geste rek da ngay da ñuy bind wala nga wooñu ci 77 991 92 08 77 991 92 08 mais je rappelle aussi que jour boobu euh, ngoon gi danaa amal fête bu foofu ci Najla man ak jeunesse su Vélingara yëpp donc euh, ngir ñoom aussi ñu xam lan mooy samay samay yëngu-yëngu di bëggee rek ñëpp ñoo xam ne ni ay doomu Vélingara lañ Keita Balde n'est-ce pas xam nga Salif Diao ñoo ñëpp ay doomu Vélingara lañ wax dëgg ah monsieur Bari Diawandou kooku nga xamante ne vraiment mu ngi def euh, teraanga di teral doomi velangara di leen euh, teg ci yoon waaye itam di leen dimbali ci yu bëri di jaajëfal marraine événement boobu nga xam ne moom mooy soxna ay Aïssatou Bari euh, di ko jaajëfal bu baax a baax a baax waaye maa ngi jaajëfal Ami Diallo amadu waa Amakoul nga xamante ni sam ñu ngi ciy jàpp Najla du ma leen mës a fàtte Najla ak Naomi Hôtel sama grand Hamadi Koulibaly à Bordeaux di nuyu aussi Max bu Najla Maguette ah donc Mara maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp euh, jàpp ngeen ci bu baax a baax a baax ñooñu suma samay premier partenaire foofu nga xam ne moom mooy sama ville natale di Vélingara tout de suite on va aller voir Stanley Now juste après ça on reçoit DJ Dollar n'est-ce dañ ko këf nag parce que fi mu ne dafay nekk ci voyage dafay préparer voyage war a dem Luxembourg après loolu mu war a dem ci Afrima yi n'est-ce fële aux états loolu yëpp ci waxtaan léegi-léegi bu ñëwee ci plateau bi let's go C'est Loco, retrouvez-moi dans l'émission Made in Africa sur 2STV Sénégal avec El bu dara rëy ci sa ay bët n'est-ce pas just follow your way you'll find your way ku nekk si ñun rek euh, am na lu la yàlla sàqal ci àddina bi te boo taaxeetloo rek jub. ànd ak moom euh, di nga ko mës a gis incha allah te di nga mës a find way si si loolu alors on reçoit Didier Dollar l'incontournable je disais tantôt le meilleur yeah. parce que tey boo ma laajee lu tax ma ne la le meilleur j'ai les critères yoo xam ne samay critères de base la pour ma ne la moom mooy le meilleur actuellement euh, c'est le plus sollicité en Afrique Euh, DJ Dollar nekk suñu fierté euh, ci musique urbaine alors ñu nominé ko nag Afrima Awards awards yooyu nga xamante ne euh, ñu ngi koy amalee foofu aux États-Unis mu war fa dem ci loolu ñu dalal ko fii bala muy dem ñu waxtaan ci loolu je rappelle aussi que du moom kese la ñu nominé fii ci Sénégal ya a Adjouza qui est nominé aussi ak Viviane su ma juumul alors ñu dalal ko aujourd'hui sur le plateau c'est pas la première fois nag moom xaritu Médina Africa parce qu'on C'est un ouais. plaisir de te recevoir, mon frère. Ouais, le plaisir est partagé, frère. Uh -huh. Et euh, j'en profite euh, pour passer le salam à tous les téléspectateurs. Uh -huh. Et euh, donc, ça, c'est mon plateau. J'ai l'habitude de faire euh, Médine Africa. Médine Africa, tout à fait. Donc, euh, donc, je passe mon salam à tout le monde. Uh -huh. On est là. On est là et euh, voilà. super ouais. alors soo gisee tamit ma invité souvent c'est parce que tu es l'un des DJ boo xam ne vraiment euh, yaa ngi impliqué wu ci musique urbaine africaine mm. tu as des relations avec beaucoup beaucoup d'artistes africains mm. am nga ñu bëri ñoo xam ne jot nga def collabo ak ñoom ci ay concerts mm. ci ay ma rafraîchir mémoire gars yi tu as tu as eu à faire des concerts avec Wizkid tu as eu à faire des concerts avec Davido plein plein plein d'autres artistes ba tu nous as offert une interview avec euh, Kiss euh, am na ku fi nekkoon fan yi scénariste bi fi mais dollar nag yow nag. DJ dollar. y'avait y'avait waaw. mu ngi nekk dollar yi de c'est pas pour rien qu'on l'appelle DJ dollar alors ce single. yaa ngi Nix ak James bi day gël. bi day gël bu génnee ba tey. xam naa ne yaa ngi ci projet yi. mais gis amaatuñu beneen single lan moo exactement non en fait e, c'est parce que dañuy waajal lu rëy rek. xam nga booy waajal lu rëy moom il faut prendre le temps nécessaire. pour mun koo génnee. Mhm. pour boo ko génnee niveau international mi ngi ciy séntu mu yegg foofu. Mhm. donc xam nga liggéeyu studio du da ngay ñëw rek taf tafee pour du course quoi da ngay préparer bu baax génnee des produits de qualité génnee des vidéos de qualité mhm. après nga mun ko exporter au niveau international dëgg la alors liggéey daaw tu as un artiste qui s'appelle Modou Diouf. exactement artiste sénégalais. Ouais, sur mon, le plan international mon, frère Modou waaw. maa koy jaajëfal bu baax a baax a baax <laughs> daaw. balaa ngeen di dem Afrima. parce que mm-hmm. daaw da ko ak gunge woon. exactement ah, yow à ta grande surprise ren. ñu nominé la exactement ci DJ yooyu nga xamante ne mooy best DJ African DJ. exactement euh, c'est pas n'importe qui nag la ñuy nominé ci catégorie yooyu alors loolu qu'est-ce que ça ça m'a vraiment fait plaisir parce qu'en fait xam nga genre nomination yooyu. Mhm. ay source de motivation la. tout à fait da lay won ne you on the good way yaa ngi ci yoon bu baax bi. pour mhm. pour euh, pour mën a yóbbu Sénégal wala musique urbaine sénégalaise fi nga bëgg mu yegg. Mhm. ñun suñu rêve yëpp mooy di représenter Sénégal un peu partout dans le monde ñu gën ñu gis ci niveau international bi ci ci musique urbaine mhm. internationale bi ñu am fa présence mhm. loolu que ça soit artiste wala DJ ñëpp ci war a jàpp pour couleuru Sénégal mën a foofu dëgg parce que assisté naa du luñ ma wax du lu ma ba pare seetaan diffusion bi mooy CNN CNN waaw buñ lay buñ lay buñ bu ñuy def ak yow interview et tu as vraiment très bien représenté le Sénégal ci sa ay kaddu n'est-ce pas ak yooyu alors

donc c'est-à-dire samedi là samedi qui arrive. Mhm. donc euh, c'est un showcase. mais gars yi nee nañ tamit ñu ñu laaj billet dollar moom la la moo nekk kan moo nekk ci ginnaawam quoi. <laughs> yaakaar naa liggéey la wala kii la. non comme comme j'ai l'habitude de te dire liggéey la rek. liggéey la après. Euh, ak, aussi ak nouer bonne relation avec les ya non y' a ça xam nga nit moom nit en fait mënul liggéey moom kese. dëgg ya y' a y' a y' a une toute une équipe. derrière. équipe bi nag dafa am équipe bu Sénégal am équipe bu US. am équipe bu Europe xam nga. Mhm. affaire yi da ngay teg équipe bu dëgër. dëgg la leer la ne xam nga fii moom. loo joxul sa bopp gëdd rek gars yi mënuñ la ko jox. nga koy ngay teg say base yu wóor. Mhm. après bu professionnel dès le départ rek li des yëpp ay jaar yoon. dëgg la yeah. donc dëgg la euh, je rappelle exemple... aussi que c'est pas la première c'est pas qu'avec MHD amoon temps yële defoon nga ak Bouba. defoon naa Bouba defoon naa Maître Gims. Maître Gims et, voilà. et j'en profite pour euh, pour remercier et féliciter aussi mon équipe de du Luxembourg euh, Southside Production. Mm. et euh, et aussi mon équipe de Paris. Mm. donc euh, franchement ils sont en train de faire un beau boulot. Au Sénégal tu as African Victory. exactement j'ai euh, au Sénégal j'ai African Victory j'ai Dido. Dido ouais là-bas. mais Dido. <laughs> non mais Dido. Oh là là, mais, mais, mais Nix et surtout mais, ouais, non mais je je dis même pas nix je dis dollar parce que yow moom. <laughs> waaw yow yaa war a yaa war a gérer foofu. donc voilà voilà et, et big shout out à Nix aussi. Hein, uh-huh. de passage. Uh-huh. qui a mis le feu avec la sortie de son nouvel album. de son nouvel album j'espère donc, en tout euh, cas le recevoir très bientôt sur ce plateau. on va en parler j'espère un album très très original. Euh, alors daañu waxtaan ci loolu incha allah alors dollar. depuis bi ñu la nominé ci Afrima yi chemin bi c'est comment ndax yaa ngi am ay retours yu positifs. si si maa ngi am retour yu positif et. te aussi euh, sénégalais itam. seetaanuñu ma ñu ngi voté bu baax. dëgg la euh, à part sénégalais yi aussi je remercie beaucoup mooy Afrique francophone. Afrique francophone tout ce qui est Cameroun. Cameroun Côte d'Ivoire Abidjan euh, Ivoirien Malien. Mhm. ñooñu ñëpp ñu ngi ciy jàpp di. di voté parce que en fait c' est une première fois ñuy nominé DJ bu francophone. donc ñoom dañuy jàpp ne dama leen di représenter en même temps. dëgg la alors xaaral ma leeral Didier Dollar si Afrima Awards yi bi ñu commencé ba tey en tout cas yi am euh, États-Unis mooy African Music Magazine. n'est-ce pas donc euh, bu leen ko aussi jaawale ak Afri parce que Afrima yi deux la. deux la waaw n'est-ce pas am na African Music Magazine mooy bi ñu nominé DJ Dollar boobu mooy am aux mm-hmm. n'est-ce pas. donc kenn bañ di jaawale ñaar yooyu boo bëggee votel DJ Dollar da ngay def Afrima AFRI 2MA point com. dem ci rek c'est pas difficile da dem ba fu ñu nominé DJ yi. Mm. da dem cocher puis tu a voté pour Didier Dollar donc ngeen dem voté ko alors lui c'est le seul boo xam ne moom mooy Afrique francophone. exact su pays africain yi nga xamante ne dañu làkk nasaraan yëpp. mooy mooy français euh, moom moo leen di représenté te loolu vraiment euh, c' est une victoire. du ma par xaaruma sax mu jot awards bi mais nomination bi rek c' est une victoire pour le Sénégal ndax tey suñu musique euh, ñun li mooy suñu coupe du monde ak suñu coupe d' Afrique ak. lii la ñu am ñu amee ñu mel nii nañu dem voté leen vraiment ñu jàpp ci bu baax a baax a baax. Hmm. su dollar demee indi trophée bi Sénégal suñu njëriñ la ah dina ubbil yeneen artistes sénégalais ay buntu ngir ñu mën am courage di leen nominer foofule. bàyyi leen xel ci loolu bu baax a baax a baax. kañ ngay Euh, Amérique xam naa moom américain la de <laughs> kii. xaw ma yaakaar naa mu ngi Amérique moom en fait euh, damay def Luxembourg ba pare. ok jeudi bi laay dem Paris incha allah. jeudi waaw su ma demee mu dem def euh, jaar Luxembourg def showcase bi. Mhm. après à partir de là vers début octobre. comme euh, cérémonie bi c'est le 7 octobre à Dallas. c'est le 7 octobre xam naa après début euh, fly to Dallas pour représenter Sénégal Afrique mhm. francophone. waaw ñun itam day suñu patron yi. da ñu dimbali waay ñuy dem di mën a couvrir yooyu. couvrir yooyu waaw nest pas donc am na solo doomi Sénégal itam buñ ko nominé ci yu ni mel euh, pas man pas kii pas kële waaye bu amee journaliste sénégalais bu mën a dem. ah n'est-ce pas pour couvrir loolu gën ko mën a fësal itam euh, xëy na déwén dina njëriñ ñeneen nest pas daañu ci xam lu gën leer incha loolu am solo en tout cas Dollar c'était un plaisir de te recevoir je sais que t'as de temps nest pas donc euh, dama jox chemise Versace bi kaay taxaw kaay jël kaay jël sama <laughs> borom nga <laughs> ah, c'était un plaisir de di wax di voter Dollar nest mm. pas mu ngi représenter Sénégal bu baax de lui voter Made in et de tout 2STV de tout cœur avec toi. Euh, Sénabou jox da nga koy jox euh, Snapchat 2STV bu eggee Amérique mu take over. exactement ñu take over. Ah, ñu take over defaloon naa ko MTV. yeah c'était un plaisir tu avais fait pour MTV. donc jox ko mu defal ko pour 2STV merci beaucoup. ça marche on va sur euh, tout de suite allez. allez au revoir merci bye guy let's go. good. Star Boy representing for Africa worldwide, and you're watching Those Ass TV. Keep it locked, cause we say so. Yaga, Mexi. ay je di kontaan ci moom Didier Dollar n'est-ce pas euh, euh, kan moo nekk régie Ousmane euh, non soit Didier Emma wala Pamay alors da ngay jël Skepta Skepta nga tegal ma ko nii léegi léegi Skepta ak Wizkid n'est-ce pas ci moom laay ñëw mu ngi ci suuf da koy yéegal ci kaw ah di kontaan seen bu baax a baax a baax waa régie aussi nga xamante ne ñu ngi ñu ngi jàpp ci yëf bu baax a baax a baax avant de recevoir Mabo sur ce plateau alors di leen rappeler ni toujours euh, don alimentaire yooyu nga xamante ne mu ngi am foofu foofule euh, au niveau de Vélingara di wax toujours gars yi pour ñu pour ñu gën ci jàpp rek incha allah euh, jàppale aussi bañ a fàtte ñi nga xamante ne ñu ngi ci ay situation yoo xam ne situation yu difficile la ku nekk rek ni nga mënee ñun amuñu waaye am na ay nit xëy na yoo xam ne jot nañ ne bu ñu demee si ñoom daan ñu mën a jàppale ñu mën ñu dimbali pousse ñu ba ñu mën a dimbali ñeneen n'est-ce pas alors ci loolu moo taxoon ñu initier rek don alimentaire boobu nga xamante ne mu ngi am euh, ce 29 septembre à partir de 10 heures foofu au centre d'éducation euh, centre de récupération et d'éducation nutritionnelle bi nga xamante ne mu ngi foofu au niveau du village de Saré Thiali à Vélingara keneen koo xam ne tamit mën nga di ko defal sa dëkk ah dañ leen di exhorter rek ñu bañ a fàtte euh, ñi nga xamante ne ñu ngi ci ay situation yu difficile ci réew mi fi mu nekk euh, ñi am sax dañu nekk ci ay problème waxuma la ñi nga xamante ne ils déjà dans des problèmes ñu bañ leen di fàtte n'est-ce pas donc loolu am solo la du ñu mës a fàtte eh, ñu ngi ci hôpitaux yi du ñu mës a fàtte ñu ngi ci prison yi ah, di leen ñaanal bu baax a baax a baax a euh, di ñaanal aussi ngaaka n'est-ce pas di ko ñaanal yàlla génnee ko foofu mu nekk ak képp koo xam ne yaa ngi foofu rek n'est-ce pas alors euh, Skepta en whisky avant de recevoir Mabo sur MVP on en somme comme jamais oh, oh, oh. ah Aïcha di kontaan ci képp koo xam ne rek fi mu ne yaa ngi seetaan 2STV di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak suñuy programme vous suivez Made in Africa la première émission de variété musicale panafricaine alors euh, si vous venez de nous joindre n'est-ce pas euh, di leen wax ni c'était à l'instant DJ Dollar moom la ñu recevoir ci première partie bi waaye léegi rek euh, daañu dalal Mabo n'est-ce pas qui qui sont en nouvel opus et qui va en parler euh, dans cette émission nest Mabo en général, mais aussi No Face Undercover. Qui est ce producteur? On va en parler dans cette émission, Inch'Allah. Il ne reste plus assez de minutes. waaye ouais, euh, Ousmane euh, Pamay je te laisse introduire la vidéo le temps que il s'installe sur le plateau ñu waxtaan ci ay ci ñu dem Allez, une très par Awanji Films. Alors, une rencontre qui s'est faite en 2015, un groupe a euh, euh, le 13 février 2017. C'est Mabo euh, que nous recevons sur le plateau de Made in Africa. maa ngi leen di jaajëfal No Face Mia lu invitation bi ngeen di invité. jaajëf ma bàyyi madame comme d'habitude rek. <laughs> waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. maa ngi lay nuyu di rafetlu invitation yi di euh, euh, remercier téléspectateurs yi ñuy seetaan ñëpp. ñuy seetaan mhm. seetaan 2STV yi alors. on est sur le plateau de Made xamante euh, ne souvent dañ fi waxtaanee lu jëm ci développement musique africaine ñu yàgg fi nag wax wax yi No Face n'est-ce pas parce que doon na koo xam ne mu ngi ci contribuer bu baax a baax a baax alo No Face. de, de la rencontre en 2015 Mia No Face bi euh, ak bi Mabo juddoo damoo moo nekkoon si diggante bi on a vu qu'il y a eu ba bi ngeen di def yaa ko waral ci la Mabo juddu n'est-ce pas ma euh, non Mabo mi ngi doon exister toujours. toujours. xam nga lépp communication la ak temps. tout à fait. Euh, boobu pareeguñu woon pour. jël turu Mabo génne. ok parce que woon single officiellement tout à def mooy round live lañ ko def. Euh, trois après quatre ñu def benn cover. cinq bi ñu indi ren xool. après yaa ko waral nag on a décidé ñu xool tour bi gën a baax bi gën a correct pour ñu génne ko mais dañ doon bind rek NFU Mia mais Maabo bi juddu na depuis mariage bi. ok ouais. depuis depuis seen mariage la Maabo bi juddu alors No Face naa wax ak wax ci yow déjà wolof bi. parlons de ça un peu gis naa nga jot a euh, defal ay artistes yu bëri ci lu jëm ci ay composition musicale ñeneen ñi di ko wax euh, beat making euh, ma gis ci ne ku mel ni l'artiste gambien Katato dem na ci awards Afrima n'est-ce pas donc ça a été une musique qui a été acceptée Adjouza nominé nañ ko ci te yaa produiroon musique bi mais on a toujours du mal à accepter cette musique au Sénégal la moo ko waral. pour man hmm. déjà fi muy njëkk waxaat mooy. Euh, je pense que ci wolof bi lañ nekkoon. Mhm. Euh, waxtaan nañ si waxtaan naa si ak ay kilifa xoolaat nañ étudier waat nañ bu baax a baax. tur bi si boppam. Mhm. ñëpp d' accord nañu ci ne bu ñu changé wee W bi daf ko J moo gën mu nekk Jolof Beats. mu gën a large quoi. Mhm. voilà léegi je pense que du problème ah gars yi nekkul ni dañ ko bañ a accepté wala kii kii nañ ko non ku nekk mi ngi def recherche si ce coin. d' accord alors ñun ñëpp ñu bokk même affaire bi ñuy def. li ñuy support li ñuy xeex pour industrie bi rek avancer moo tax ñu koy def mhm. alors je dis pas que ni nit ñi accepté wuñu ko mhm. parce que li may def ak li beneen producteur di def ak li beneen artiste def yëpp benn la léegi li des mooy ñu wut tur benn tur boo xam ñun ñoo koy moom bu ñëwee Sénégal ne oh am na musique yu fa nekk yan ñu commencé cité mbalax dañ nekk carrément Sénégal la jógee. ñu ne Jolof bi ñu ne o oh, loolu Sénégal la. à part lan lañ fi war a rimaat loo xamante ne fan la jóge fii. <laughs> amul leneen. <laughs> wolof bi c'est pas encore officiel carrément nit ñi adhéré guñu ko ba mu ba mu fort mais lan moo fi nekk mbalax te ñëpp toog nañ ñu ne mbalax mën nañ ko accepter international c'est pas parce que mën nañ ko accepter mën nañ ko accepter international mais c'est juste que euh, dafa riche trop. dafa riche trop mbalax dafa dafa riche tellement waaw bi dafa am nu mu koy déggee ba ñeneen ñi dañoo am problème pour nekk ci ci ci rythme bi mhm. alors jolof bi fusion bi lañ def. Mhm. du benn création fusion lañ def. dañoo jël li nga xamante ne moom la sénégalais yi soxla ci mbalax bi. Mhm. ñu jël li nga xamante ne moom la ñeneen ñu dul ay sénégalais soxla ci musique bi. fait ñu fusionné ko pour mun ko proposer ñeneen ñi. Mhm. alors je pense je pense que bu ñu bu sëggee ci loolu ñëpp liggéey pouse ko. suñu bopp la ñuy liggéeyal. tout à fait suñu réew à fait ñu avancer. alors il est que ñu avancer ci musique bi il que ñu gëm ni euh, lu ñuy def ñun aussi mën nañ ko jaay àddina bi yëpp alors Mia. gis nañ ni round bi ngeen ko commencé ba tey jii euh, majeure partie yi yenn track yi amour ngeen ciy gën a wéy lu tax. waaw euh, si diggante sama xarit. Mhm. amour si diggante ak sama yaay. tout à fait amour mu ëmb lépp. alors euh, dañuy en fait couple lañ niveau ñu génnee li nga xamante ne ñu wane réalité bi. tout à fait on vit on vit euh, la euh, l'amour exact quoi. Mhm. donc loolu la ñuy wan population bi loolu la ñuy wan sénégalais que ça mhm. soit man ak sama yaay que ça soit man ak sama xarit. Mhm. que ça soit sama bëgg ci sama réew. waa c'est ça amour moo ëmb lépp donc. Euh, moo tax ñu koy valoriser. daf ñu bett c'est dernier opus moom moo topp ci happy birthday. Mhm. alors ndax mën ngeen ñu wax un peu lu ci ci série série de continuité boobu nga xamante ni yéen a ngi koy amal du round 1 à round bi nga xamante ni ñu koy xaar. waaw daf ñu bett bi mooy lancé premier single lu album bi nar a ñëw incha allah. ok ah, ok waaw alors euh, bàyyi ma bàyyi monsieur bu gën cee xuus. Euh, ah, ah. déjà si lu ma bëgg njëkk wax mooy. Mhm. ci question bi nga ko posé. parce que nit ñu ngi koy laajte. Mhm. ñoom son love rek la ñuy def bëggee rek la ñuy way tout à fait voilà ñaari son love lañ def ok son ñu def yëpp ñaari son love la nameel ak bii nii mm-hmm. nameel bokkul ci album bi ok nameel am na beneen single bu génn avant bii di génn alors il faut pas que ñu il faut que ñu arrêté quoi ku nekk nag am nga libre nga wax li nga santé li nga kii mais bu album bi génnee je pense que ñiy wax mm. ak ñi doon dem di def ay affaires yëpp dinañ regretter ndax dinañ buggee a affaire boobu mm-hmm. mm. Hmm. affaire baa ngi ñëw. donc yenn round yëpp bokkul ci album bi. daf ñu bett bi moo ci album bi daf ñu bett boobu noonu dina bett ñu bëri. <laughs> <laughs> dina bett ñu bëri moom rek moo bokk si album bi instant bi. alors euh, c'est un la musique africaine n'est-ce pas je dirais pas la musique sénég dans la musique sénégalaise parce que mu ngi ciy def ay jéego yu am solo man personnellement je suis parti dans le gis naa euh, li nga xamante ne mu ngi koy liggéey n'est-ce pas donc euh, moo am ambition bu baax a baax waaye aussi créativité ci li nga xamante ne moom lay def on a eu à voir l'extrait de la vidéo ñu xoolaat ko n'est-ce pas avec la complicité de la régie ñu ñëwaat sur le plateau adieu let's

exclusivité yooyu. waaw dafa am concert yi ñu war a def. d' abord ba pare. Uh-huh. Euh, bi si njëkk ñu war ko def. Euh, Bogué incha allah Bogué incha allah. Bogué le 6 à Mauritanie. waaw incha allah <laughs> waa Mauritanie ah ñoom nag dañuy seetaan émission bi waa Bogué maa ngi leen di jaajëfal n'est-ce pas Nouakchott ñëpp ñi nga xamante ne rek ñu ngi Mauritanie alors xaar leen euh, No Face ak Mia. maa yëpp nañ ko téye. képp ku jëndoon ticket na nga yaa ngi ñëw incha allah ngir amal fa concert bu am solo n'est-ce pas attendez le groupe Mabo en Mauritanie alors euh, RFI ngeen nekk ci ay finalistes n'est-ce pas mm-hmm. euh, je pense que ñu ko yëgagum Sénégal bëri ñu de mm, ñu war ko fësal nag n'est-ce pas donc finaliste RFI le groupe Mabo loolu itam ay vote ay vote dana ci am. ah vote yi suba la incha allah. suba lay suba lay commencé tey si minuit je pense. tey ah tey si minuit à partir de tey mhm. suba si à partir de tey si minuit la commencé voté. waaw Sénégal ngir yàlla. <laughs> dee leen si jàpp. bu ñu nominé sunu artiste wax naa ko léegi ak Didier Dollar bu ñu nominé suñu artiste dem leen ngeen koy votel alors gis ngeen loolu le groupe Mabo finaliste RFI ci année bi 2018 tey lay commencé dem leen ci RFI découverte ngeen dem voté leen bu baax a baax a baax yokk doole n'est-ce pas mu ne. <laughs> RFI Talla. da dem ci sit bi juste ah. ñu dem ñu dem ñu dem ci site bi rek. Ah. Euh, waaw votel votel Maabo. Mhm. incha allah n'est-ce pas donc ndam li ñëw fii la ci Sénégal ñu bégal ñu rek comme ni ñu daan def. chaque jour de toute façon lien bi lien bi ci boppam mën nañu ko am après ci Facebook bi. suñu ak euh, ci kii bi Instagram Instagram aussi numéro WhatsApp Maabo. ku soxla information yi mun na envoyé foofu noonu message ñu ne ko lien bi comme ça mu voté direct. ndax mën nga joxe ndax mën nga joxe numéro WhatsApp. voilà numéro WhatsApp bi c' est <laughs> <laughs> loolu mooy pour numéro WhatsApp bu Maabo. Maabo message yi dina bëri nag ñu am patience tuuti rek di. di amul ay da nga ma neex ak kii. waa message ñu jox la lien. bu bëgg liggéey bu fekkee liggéey dëggantaan moo leen yëkkati. <laughs> nañ woote ci 77 802 61 09. ok foofu mooy numéro manager mais beneen bi moom pour fans la di ñaan gars yi nag ne message rek ñoo bëri moo tax ñu yéex a woote. ñu yéex a wuyu di tontu ñu ngi jégalu. ku soxla information pour. Euh, Euh, prix RFI nañu laaj foofu noonu incha allah dinañ lien bi comme ça mu voté ak téléphone am direct ayca ngeen xaaraale lien yi ci Facebook officiel bu Mabo ak ci Instagram n'est-ce pas mhm. donc euh, on a plus assez de temps c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau plaisir de quand même une heure de temps mën a gën a parce que mhm. c'est la première fois ma recevoir Mabo sur le plateau Made Africa donc mhm. Face di kontaan si bu baax a baax a baax di alimentaire au centre d'éducation et de récupération nutritionnelle bu Saretiane incha allah daañu fa ñëw ngir amal fa ay dons alimentaires donc xaar la foofu foofule di nuyu waa Vélingara yëpp di nuyu képp koo xam ne rek ñu ngi seetaan émission bi am nañ ay shout-out war a def wala. yee bi si njëkk mooy suñu grand Keyti. Keyti. Euh, ndax album bii nii euh, defe naa ni moom lañ ci liggéeyal bu baax baax daal. waaw di ko remercier bu baax a baax di ko ñaanal gudd fan ak wér ak tawfeex de passage di nuyu suñu grand aussi Gën Man Xumaan Gën Man Xumaan waaw di remercier Mass Level Studio mhm. di remercier ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ ci projet bi ñoom Meru ñoom Satou Ajevo Fatima Zata Fashion Kumba Gisee Daouda bëri na quoi. Mhm. ku si déglu sa tur rek. Mhm. remercier naa mais am na koy koy remercier. wax na lépp <laughs> monsieur wax na daal waaw ñu ngi remercier ñëpp di ñaanal ñëpp di leen wax merci jërëjëf et aussi fans yi waaw ndax ñoom ñoo tax ñu nekk première des tendances ci YouTube. tout à fait ba Google yónnee nañu message. boo xamante ne pour wax ñu ni seen vidéo moo nekk first instant bi si YouTube. boo demee heure bii kay jeex 48 heures yi def nañ ci 300000 vues grâce à ñoom. super merci encore super. mille fois ñu ngi leen di jaajëfal. et je rappelle aussi que yaa ko waral seen vidéo c'est la vidéo la plus vue de 8 millions de vues. Ouais. macha allah ay di ñëpp merci beaucoup ce fut un plaisir je vous retrouve lundi avec d'autres invités Made in Africa pour